te que loolu musul lekk seen démarche leur démarche a toujours été de euh, disons de. jéem rassuré waat état rassuré et tout. mais taxul ñu soppi de. waaw mais taxul ñu delluwaat. mais mais maintenant en fait au delà de ça. merci benn le coup déjà parti. deuxième chose ce qu'il faut comprendre Thierno moom ko gën a xam France vingt 24 RFI TV5 fan la ñu bokk. Mm. luñ tuddee audiovisuel extérieur française ministère merci beaucoup. c'est-à-dire que mm. France 24 RFI tv la caisse de résonance de la diplomatie française au niveau mondial parce que en réalité il faut maanaam au moment de la guerre d'Irak mm-hmm. France avait estimé le traitement qu'on de la guerre d'Irak mm. par CNN benn côté par BBC de l'autre lu tax loolu mu mën a nekk parce que ñoom amuñu woon chaîne boo xam ne bi au niveau mondial c'est là que l'idée de créer une une chaîne pour am une chaîne internationale concurrente concurrente foofu la juddoo mm-hmm. léegi nag on en a fait un instrument du ministère des affaires étrangères mm-hmm. c'est-à-dire que quand tout va bien avec Sénégal ak France dañuy wax lu neex Macky Sall mm-hmm. quand ça va pas entre Sénégal ak France dañuy wax lu neex Macky Sall te fu mu toll nii il faut être sourd aveugle et pour comprendre que entre Dakar et Paris il y des choses qui qui qui, oui. qui se passent pas normalement voilà. Moussa. waaw euh, d'abord <laughs> le contenu de li euh, France 24 bind je pense que ni ñu ko bindee moom moo moom hmm. mais li ñu li ñu wax en vérité. mais dans l'élément la c'est-à-dire dañ ne Birame Souleye dafa mettre en doute la sincérité du président Macky de ne pas euh, y aller Birame Souleye wax. mais ni mu ko waxee ak exemple yi mu jël moom moo problématique te kenn rafetul moom ci boppam rafetluwul moom ci boppam rafetluwul li mu wax donc kon euh, effectivement il a été arrêté pour ce qu'il a dit mm-hmm. mais il faut admettre que ce qu'il a dit c'est une infraction ce sont même des infractions mm-hmm. loolu il faut que ñëpp euh, nangoo moo tax mën a dafa saraxe boppam mm-hmm. alors maintenant euh, le groupe GFM pas notre GFM hein, ah, GFM Groupe France Média mhm. nga xamante ne ñoom effectivement c'est le bras armé diplomatique de la France mhm. te fii mu toll nii ñoom jàpp naa ne euh, depuis que Emmanuel Macron euh, ñëw mu ngi xaw a jéem a redresser mbir yi parce que même le sommet de la France-Afrique dafa changer format mhm. actuellement gis na ni euh, Ousmane Sonko waxoon ne du ko wax parce que parce que joxe ay kiiwam booy commencé acculé ils ils ils veulent euh, dañoo bëgg defaraat seen image en Afrique mm-hmm. parce que bul fàtte ne après de chez dañ leen fa dàq. Mm-hmm. au Mali au Mali dañ fa dàq France 24 dàq RFI dàq ambassadeur ba dàq armée ba. Mm-hmm. donc kon il faut que ñu adapté wu ci contexte bi nga xamante ne moom la Afrique bi dund. boole wàlle ci charmer cette jeunesse africaine mais ce ne sont pas ñoom ñoo ko wax les pays n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts ils n'ont que des intérêts actuellement yu ñuy euh, protéger moom moo waral seen taxawaay bi maintenant le communiqué mais pour pour pour moins que ça Walfadjri dañ ko tëj mm-hmm. Pape Alé biñ koy tëj la mu waxoon am na benn ndaw bu nekk je pense c'est brut mm-hmm. mi ngi fii ci Sénégal di def activité waxoon na lu gën a garaaw lu Pape Alé rek voilà te pourtant elle va à ses occupations donc kon euh, bu ko sant bi waxoon léegi léegi léegi léegi. maa ngi saa yu Paa Ousmane am problème. Eh. du doon ay communiqué moom mooy am. boo doon da boo amul licence waaye boo libéré boo amul <laughs> mi mi mi mi ngi noonu. léegi xam ne rek ñun ñooy sunu xaritu bopp France 24 dañuy sóob dañuy teg xel. dañuy jéem a asseoir la domination sous de de de sorte. rek mais je pense que ni. xam nañ ne la France ne peut être reconnue puissance. il faut il faut il faut y chose. moo di ni ils utilisent Ousmane Sonko. mais ils ne sont pas les amis. ils ne sont pas amis xalaatuñu ko sax xalaatuñu ko aussi nañ si bàyyi xel. Ousmane Sonko moo ci war a bàyyi xel. ak ñi nga xam ne parce que damaa gis booy Ousmane Sonko yi. di leen tàgg France 24 télé askan wi. waaw <laughs> yeneen booy naan nañ leen di tijji kanam. <laughs> nañ def très attention à France 24. les de France 24 en waaw xam nga après dafa am benn comparaison mooy gis ñu koy def. bon wala fajjiri France 24 man gisuma dama gis. nga traitement tendance lañ ko coupé signal. Ah? traitement tendance lañ coupé signal. xam nga ma la bëgg a wax. Hmm. Euh, que du du du affaire bokk. si fait gravité bi fay dafa am lu grave loo xam ne xam nga la laay la sama problème ak ñu bëri. gis nga lépp luy menace interne mën nañ koy ger ci suñu biir entre sénégalais. mais ce qu'on prête à France 24 ni ko ñuy jàppee bu dee loolu la menace extérieure la. non ils sont là. nga ne ils sont là. Sara Sakho Sara Sakho xam nga déggoo ma non dañ leen dànkaaf. Mm-hmm. dañ xam nga la mooy problème mu Sénégal gars dañuy am conviction matin ak benn conviction kii quoi li ñu am wëlbati ko damul ndig jaar ndig jaar nit ñi dañuy wëlbati ko te man xaw ma wëlbati ko man dama xam constance mënoo nekk fii nii yow lu ne nga wax France. dañu war a rek xam. mais tu n'es pas constant c'est-à-dire saa yoo ñëwee. constant nga jéem a ut loo wëlbatee problème bi pour yóbbul ko ay Guy Marius Sagna. pour yóbbul ko ci ay. non lay wax di njalaat du loolu. Thierno laa lay tëdd di njalaat. bu mu attaqué Guy Marius Sagna la lu luy bàyyi yow ay France dégage ak yooyu bu ko ci wax waxal ci li njalaat. voilà moom mooy ñu suñu trajectoire ak ñu jëm comprendre loolu tey bu France 24 am loo xam ne dafa waxoon xam ne les premiers à les défendre bi la Basir wax la rek kii quoi bi rek bi la defal kese la ñoom c'est des instruments au service de la diplomatie française ay chaînes nag moo tax euh, par rapport ak euh, immigration clandestine par rapport toog lu yàggu rek di wax seen tour de feu ñoom xaritu Ousmane Sonko dañ leen mbalak waaye doo bàyyi ceinture de feu bi fii terrorisme amu fi ak yooyu noonu léegi yooyu yëpp nag boo defee link bi laa xam lu ma bëgg a wax te Sénégal dafa soxla muy Ousmane Sonko di Macky Sall di Karim Wade ñu sookale parce que ñoom xool bi France amee ay coow terrorisme yi en dem ba ci palais bi gis François Hollande gis nga seen émeutes yii nii yëpp yu mujj yi nii xam nga toujours dañuy gën a àndaat sookale wu ñoom ci lu ñu doon mooy en tant que en tant français quoi léegi fii tam débat boobu dafa ñëwaat le débat sur la souveraineté dafa ñëwaat parce que tey dañoo nekk à l'heure de la diplomatie multipolaire tey dafa am acteurs yu bëri yi interagir Sénégal nee naa yi li fiy am ak Turquie ak Émirats arabes unis France dafa perte terrain bu bëri même comme premier fournisseur européen de l' Afrique Allemagne li rabi la peut-être depuis 2017 tey loolu nekk di dabu ci ñaari façon mm. la politique de la carotte et du bâton mm. Mm. waaw dañ lay santage quoi moo tax foofu la war a aaree xale yi dañuy def benn politique culturelle parce que guerre boobu dafa def ci ay guerre culturelle ñun waaye ñu ngi may sax am nañu ay centre culturel léegi français yi dañuy gën a renforcer seen centre culturel parce que guerre numérique bi gars yi ñu ngi ak Russie ak yooyu noonu. moo tax léegi su ma gisee bu ma demee ba gis booy naan ay France 24 télé askan wi booy yeew leen yéen a ngi nelaw de nekk doxu doxuñ seen programme de ñii de voilà. Pas ça. Euh, moi je pense déjà que je suis xam naa loolu moom. Euh, parce que maa ngi lay dégg nga man pour kii. non non man man man man xam ni dama xam am position si ñoom. Mm-hmm. musuma leen a gëm. oui musuma gëm sax moom yàgg na mun naa ko seede. musuma gëm RFI c'est-à-dire que même la presse française la bi ñuy partagé ñu kaa jot Bachir. est-ce que tu sais qu'est-ce que je fais. bu sama téléphone. ni laay def coché. principe parce que xam nga lu tax la. xam nga lu mu xam croisade kuttu bopp dagg jël yóbbu seen dëkk noonu la ñuy dundee ak ñun léegi nag baa ko xamee ñoom du la sonal te loolu la Chinois yi di dund loolu la japonais yi dund ak keneen ak keneen yi loolu la ñuy dund ak ñoom xoolal rapport italien ak français. Ah. italien boo ko waxee français mu ko xam nga lu na wax kat sopankulo mm-hmm. baal leen ma ah kenn déggu la ah loolu moola la mu doon waaw <laughs> bàyyi ma sa mm. loolu moola lool ka dégg dégg <laughs> ñoom am ci sànni loolu tax match France Italie dañ nekk toujours parce que boo xam ñu ne la ñoo ñuy dëgguwunu mm. ñoom noonu la ñuy dundee ñoom mm-hmm. waaw léegi xoolal ñun suñu réew yi Afrique parce que quatre cents ans d'esclavage ak colonisation kooku ñëw tey ne la non seen jafe-jafe bi ngeen am ni naan si dimbali nu mu ah, seen banque bi alliance française AFD AFD agence plutôt ndax lan récupérer li nga yore yaa ngi naan quatrième producteur réserve réserve d'or te doo te doo yu amoo amoo miin amoo la Charles de ba muy daw di dem Londres da leen ne jël leen or bi leen sàccoon Afrique delloo leen fa moo indi fort de Bakel na la ca des ba leen ko delloo làq ka Mali ba leen ko fa làq Allemagne bu ñëwee bu ñu gis dara mhm. ba guerre ba jeexee mu gàdduwaat yemaat ci say ay bateau mhm. yóbbuwaat mhm. ba pare moom la ñuy garantir suñu xaalis ñun di defar billet lan moo tax par exemple ñoom tubaab yi lu ñuy dundee carte téyetuñu billet ñi ci ëpp xam nga lu tax c'est plus économique lu tax ñun ñuy continuer di ñu téeloo billet parce bii billet bi dañ leen koy fay ñun ñu koy imprimer Bordeaux li ñu dal. waaw loolu yëpp danoo wopp loolu yëpp nag France 24 RFI dañuy arrangé wu toujours ci communication ils n'informent pas ils communiquent. Mm-hmm. loolu ñu mës a dundee ak ñun. léegi nag ñun ñoo amoon race d'intellectuels ou d'instruits yoo xam ne ca formatage ba li ñu gëm je suis fonctionnaire non moi je suis France 24. je suis chez moi enfants. c'est, je euh, les ai éduqués, hein. ma famille, ah non, man, sama kër. mon cher sénégalais complexe boobu. oui par exemple tey nag dafa dañu toll nag Sénégal boo xam ni complexe boobu dafa dañ. je suis pas d'accord par contre sur le communiqué du ministre. parce que communiqué bi pour man du am effet ci France